wan leen ngeen ne ñu ay con conférence ak nag man naan day day bañ résultat man de damay taal nday Sénégal tey rek laay taal nday Sénégal tey laay boyal ndayam tey laa koy taal takk jëppit brique alma ay ca ay taxaw leen conférence bu ko rek ma taal nday Sénégal taal kërëm maa ngi ko wër kërëm maa ngi teg kërëm ki nii damay taal ndayam woo Amadou Sall Amadou Sall laa woo war sa papa war sa papa na gaaw bu dee sa papa dafa bëgg a génn fi rey tous les sénégalais mujjee CPI cent ans de prison ferme hold-up électoral boobu Amadou Ba yoonam newu ci de da koy hold-up doon président mais ñun dina rey ñun ñëpp bu boobaa sa bàyyi ci kaso ba la jëm mu ne wuu ma ne ko si Amadou Sall mu ne ko waaw Amadou Ba bu génnee wax loolu ñun Sénégal dinañ ko taal ba mu lakk jeex tàkk dinañu ray ba jeex tàkk te booba sa papaay président de ces pays lay mujjee de cent ans de prison ferme mais Amadou Ba dañuy jiite ah ma ne dawal wax ko dawal dawal dawal dawal dawal dawal gaaw ne gars yi leen subile leen subile subile subile yuuxu subile subile acca na gaaw na gaaw na gaaw gars yi génn paquet barki Quran la la wax am Amadou Sall daw dem mer mu gis bayam nako papa papa billahi pokok bayi ni yow ci kasso ba nga jëm ñun ci kasso ñu ñëppay dé parce que Amadou Ba bëss bu gënné di wax naan day dafa rejeter résultat yi dëkk bi dina tak ba jax tak té di nga ray leen ñëpp té da nga ñëw nu nga mujjé rafet na def ngay élection yu jaar yoon woote nga dialogue doxut nga woote amnistie doxut yaa ngi jéem a génn mu rafet fomp nga deret gi yëpp pour génn ci jàmm yàq nga fi fomp deret bi attention waa jële nguur rek lay wër bés bu la nga seetaan yow ba waa ji bug fee toog rey sénégalais yi bu boobaa dootoo mën a fomp deret bi de parce que deret gi day bëri lool sax néew yi da nga jégg ci seen kaw barki alxuraan conférence boobu amul ba léegi boobu ñoom Madiambal Diagne ñi ngi accéléré aja ah, na ko def na def Macky Sall jël téléphone na ko teg ko ci suuf ci suuf mu ne ah, moom laa ko doon sa saboté ah, ak ku laa ndonoŋ ak ku laa Macky deuxième tour même deuxième tour ak ak ku naa loŋ ak ku naa loŋ hmm, hmm. Macky Sall oh, teg ko ci suuf teg ci suuf def ko ci suuf def ko ci suuf ah ku ne la Macky Sall ah pittana walaani ah ku ne la Macky Sall laaj sumi kan ak sumi wat deuxième tour ah, ñoom Farba Ngom ku ne di woote wur wur wur Macky Sall jëlu kenn ne wala dara dóor nañ leen nangu leen ne Amadou Ba bés bu ma la gisee nga génn di conférence damay tëj sanday kaso loolu ko kaso barke Alquran bu Amadou Ba génnoon conférence Macky Sall tëj ndeyam ci kasso bi balen ma dama wo billahi da meun mën asa daf nako bu mën la gisse ngay conférence doko yegali nangul dañ news, ñuus ñëpp nangu nañ dañ lu news wa tok sa kaw billahi wallahi mo do bu mu genné le lendemain la wax te guddigo la wax ne le lendemain dugat dawat ñu ne jeex na ñëwaat <laughs> ma toog ne tekk ko kay live bi mi ngi fi lii live naa ko de bu muy def Macky di ko ba ma nekk ko ah kon àll nag loolu samay samay feeling la maa ko ci yokk sincèrement maa ko ci yokk pour saboter waa ji teg ko ci suuf waaye ah kon àll nag Macky Sall nag dégg ma looloo dégg ma ab ah, lu may làkk pël man lu tax nga may làkk pulaar ah mais loolu la maa ko ci yokk c'est c'est du cinéma maa yokk quoi mais waxtaan nañ Macky Sall na ko teg ko ci suuf. mais ñëpp xam ne ñi yore samay feeling la quoi pour reetaan doo un peu neexal gars yi si man la bokk quoi xam nga il faut mu am fën tuuti tu vois mais man maa ko jël fënitiser ko mais mais lo mais woo na ko Macky Sall woo na ko loolu moo tax conférence bu amul te du ko menacé ne ko bés boo ko forcé mu teg sa ndey ci kaso bi doo doo du am maanaam booy forcé hold up bi du am te yow si kaso ba nga jëm te Amadou Ba comme daa ragal kaso mu lam ko ba mu ron nangu le lendemain ñi nga xamni ñoko doon xabtal ay ma dambal jañ ñoy rus mo ko bu ko ndoko def démb bàyyi na ko tey bëggoon na ko bàyyi tey non bientôt dans 2 minutes euh, Amadou Ba va appeler jabaay pour le féliciter ma yeen yeen seen pexe bu juboon bu juboon yàq ngeen fi maa leen carré man mola Morgun ma leen tour ay hyper kit bañu wacc ma dambal jañ yirim sexe amadou jul da bayal ba ma len dóor ay hypercute bañu wacc parce alquran ma ñak sama nday sama bay man kesse ma len wacce guddi gogu amu du sallawo ci sase amu du sall daw wax baay ja baay ja daw la conférence ñu waaw dafa bëgg bañ de résultat yi ak Sall na ko takko ci suuf wala boo defé ci kasso ba lay dëkk sa mam ma dambal ñëwaat ñu ne suba ñu toogaat mu yàgg ci guddi gi ay quatre heures di matin la ko Macky Sall woo mu nangu ne ne Macky ko woo ko nga félicité ko gañe na lépp jaar na yoon woo ko nga félicité ko mu woo ko pour félicité ko ma jaa di foo ñu ñàkk nag ñànki <laughs> na eh, dans dix minutes Diomaye Faye bu la wëlesité ma ne ko yéen seen pexe bu gis son éliminé ngeen suñu gars yi ba man ngeen fi fekk soldaaru Sonko bi ngeen fi fekk de soldaaru Diomaye bi bu doon bu doon bu ak peuple bi rek heure bi yéen a ngi rayante bi direct baa ngi tuuru cocc ñu arrêté lépp wàcce lépp ci suuf mu woo ko félicité ko am naa victoire man pare naa ci sénégalais gagné nañ je suis libre depuis boobu je suis libre donc foofu rek laa yemoon ak yéen ci xeex bi xeex bi deux mille vingt et un la ci Adji Sarr Sonko musuma ko bàyyi nekk ci nekk ci nekk ci di leen promettre chaque jour man ak Ousmane Sonko ba biir palais man ak Ousmane Sonko ba biir palais yàlla dimbale na ma ci alhamdulilahi rabbil alamin lii da laa mus a taxaw bravé naa ci menace de mort saaga ndey tentative de corruption lu ne daj naa ko mais yàlla defal na ma ndam gañe naa leen Amadou Ba maka ko nax daan Macky Sall maa ko nax daan Yérim Seck maa ko roof daan Madame Ba Diagne maa ko nax daan gàngooru cagaja maa leen nax daan ñoom ñëpp maa leen ñuus ñoom ñuus ya rabbil alamin seen nam la xaaruma ci dara xaaruma ko ci dara dara dara dara dara dara xaaruma ko ci dara xaaruma ko ci donc alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla voilà ñoom ñëpp nag jamono ji ñu ngay jéem dañuy transhumé mais nee la maa leen xaar manaar sàll petrosen ne nga da ngay da ngay da ngay transhumé maa ngi lay xaar Samuel sar, prétendant à Macky Sall maa ngi bëgg a transhumer Amadou Hott mi ngi def tout dafa bëgg a transhumer Dame Diané projet port Ndayane ma ngay def tout jamono ji pour transhumer mu tag pour ñëpp Euh, mon retour, c'est après l'installation de Diomaye Faye, le président Diomaye Faye. ndeysaan ku baax a ngi noonu. caay Diomaye moo bëgg Sonko Diomaye ci kaso bi ay Diomaye ndeysaan di ñaanal Sonko rek Diomaye toog na ay guddi di naafila di ñaanal Sonko bay jooy barke alxuraan toog na ay guddi di ñaanal Sonko caa Diomaye moo ma jaaxal. Diomaye nekk ci kaso jiitu fa Sonko Sonko fekk fa Diomaye di ñaanal Sonko di ñaanal Sonko toute toute nuit di naafila di naafila di naafila di ñaanal Sonko Diomaye musul ñaanal boppam Bassirou Diomaye Faye di ñaanal Sonko rek am na benn guddi naafila goo xam Diomaye da doon naafila bay jooy billaay tee nii nii di ñaan bay jooy nii di jooy di ñaan di ci di ñaan di jooy di xaqan di jooy pare di ñaanal Sonko di ñaan oh mais Diomaye bëgg na Sonko de wuu billahi Diomaye fanaane na ay guddi naafile di ñaanal Sonko barke alxuraan di julli bay jooy di wàcc di toog di ñaan di ñaanal Sonko bay jooy Diomaye Faye ma ñàkk sama ndey ak sama barke weeru koor gi waaye moo bëgg Sonko saa yuñ fa jaaree di wax moom Sonko la ñuy wax saa yu fa yaraa jaaree chaque jour ba bul ci Ousmane Sonko di génn amul benn jour bu yaraa tëb chaque jour bu kii pare ma ne ko jaaral jaaral ziar Diomaye waaye jaaral ziar président Diomaye bu ñu ñëwee wax Diomaye waaye mais moom Sonko rek moom Sonko rek.